boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo Serigne euh, nekkoon ci ëtt xam ne nii dañ ci daan tàntaane xam-xam jàpp naa na lu ñu tàllal ndax ku dégg li wax ci Cheikh Massamba jàpp naa ne da nga xam ne am nga muy wër moo tax ñu wër waaye Moussa ne na woon nekk te moos Cheikh Massamba Mbacké mbiram li tax ne ku mel yéemam dafa dëppoo ngeen di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbiram dafa dëppoo mbiram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàttali nga ñu ne li jiitu ak juddoo waaye nag wàcc bi jiitu fekk fooy Cheikh Massamba yi lu jiitu ak lu doon waajur ko waajur koy jël muy dul ko lool waaye li moo xam ne bi mu juddoo yi ba xaw a xàmmee rek la amoon benn xel teg ko ci kanamam muy Sëriñ Tuubaa xool ko doon keneen kon bokkoon ne ci tax Cheikh Massamba réussite li mu réussite lépp mooy amoon mu ne ko xool xool woon keneen mu mel ni dina kon ñàkk a roy téef mën naa tax nit yooyu njax waaye amul roy téef mën naa tax a nit kon mu mel ni dina kon koy lay xam bi nga xamante ne ñu joxe ñooñu naka nit ki pour mu mën a réussir fokk mu am kum teg ci kanam ne kii mooy sama idole tabaarakallah waaye bu ñu amee idole ba pare mu teg lu am solo muy toog. ndax ni ku amul jom doo amul jom te moo ne Cheikh Moussa tax mu amoon jom jooju mooy xool ko ñi bokkal sëriñ bi ñëpp ñoo waaye mu amoon jom doo xamante ne itteem àggoon na ci ittee gaa yu ko weer ba nga xamante ne moom lu nit ku la moom rek ci kër baa si mbir am na lu ko xoox ba teg leen ko loo ni mosu koo defee kenn ndax loolu la ko ne liggéeyal na ma liggéey boo xam ne bi maa la ko xas bu axam ma ko loo xam ne mosu ma ko defee kenn nit nag rek tekk na ne man nasar nii gis ko yàq dugg nii ku ma xool gis nga ma sàmm moom ak féeti mu féeti moom dana mel waaye mënut a ndax doy moom koy def jëmi suñu borom subhanahu wa taala beneen bi mooy bokk na ci nga xamante ne moom sama sàmm bu may wax ko ne ko fii ñàkk complexe li nga doon am na may jàng doon bu bëri ne mooy ragal féete day xañ waaye moom képp dafa ne woon sëñ Tuubaa mu teg Sëñ Tuubaa ci kanam te gis ku doon keneen fu mu dem fa ne yóbbu ko ba amul fu muy yem wax nga léegi ne dëkk bu nekk dëkk bu nekk dem na ko waaye bu ko demee ni bu ko Sëñ Tuubaa la yóbbu tabaraka atan fatinun labibun xaasixun yaxisun nadbun xarisun ala taati walxidami badrun munirun jawaadun faiqun alamun qudwatu kullu muridin sadiqin fahim lawla alxadimu imaamu alasri qudwatuna la kaana afdalu ahlu asri kulluhum mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa ci lu gàtt ngir ñaari yëf ngir ku daaneel kàddoom muy Cheikh Mahamad dafa bokk suñuy idal te waxam matale te jotale lool kon ñu yokk ca dana jafe waaye it suñuy kilifa toog ci jotaay bi muy Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir ak soxna yu suñu suñu bàjjan yi kon ñu téye leen fi lu yàgg du yàlla ba pare waxtu wi xat Cheikh Mahmoud Bachir Bachir war a indi lu am solo moom itam kon fi ñuy tënk rek dañuy sof kii si Cheikh Mahmoudul Busra jeexale mooy mag ña seen taxawaay ci jamono ju jafe ci jamono ju lëndëm ci jamono ju tar ñi fexe ba lañ bëggoon ñu am ko mag ñu luñ bëggoon mooy am ngërëmal yàlla mag ñu luñ bëggoon mooy àgg ci yàlla mag ñu luñ bëggoon mooy defaru bu ñu wax mag ña nag ñun mag ña lañ leen mën a tudde waaye ñoom ba ñu am la ñu am ak ba ñuy fàggu la ñuy fàggu ay ndaw lañ woon ndax sëñ Tuubaa muy kilifa muy seen kilifa ñoom ñëpp bi muy woote ci Mbàkke Kajoor yoonu murit weesoo gud woon fanweeri at te am na ca ñoo xam ni moo leen magoon bi muy dem ci géej gi di liggéey liggéey bi mag rëy bii ñeent fukki atam manqué na ñetti weer te fee teewut lëm bëggoon am na ko wante ki nga xam ne moom la ñu def namusi ja muy Cheikh sàmba ni ko Cheikh Bousra wax sànq mu juddoo ci biir yoon wi maase ak yoon wi nekk ndaw waaye am la ñëpp am ci Seexul Xadiim loolu dara mayu ko lu du itte dara mayu ko lu du pas-pas dara mënu ko lu du xam li mu wët li mu bëgg lu mu doon te loolu nag Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa ubbi bunt bi wan ñu ko joxoon ñu ko Seex Masàmba jàngal ñu ko Sëriñ Tuubaa dafa wax ne wala tuqassis fadla rabbin qad ala bihi taqaddumun faqad fataj hala fa rubbama uri fata mu xab mu aqra maa xaaba aman xabru wa asra suñ tuwaa ne ne bu leen jàpp ne ak maqaame ak daraja ya gaa yi ñoo ko mën a am waaye ndaw mën naa yéex a ñëw am loo xam ne ña ko jiitu woon sax amuñ ko loolu suñ ma saama wan nañu ko law kaana law kaana ixwaanu alxadimi ixwaanu maan fa imma immatuhu min akbar imam law kaana asxaru alixwaanu alxadima maan bu dee moo gën a ndaw nekk ndaw ci ñi bokk ak Maamoor Ansali teewut fa imma immatuhu min akbari imam loolu moo tax mu àgg ba Cheikh Ibrahima Diop Masari ne àgg na ba nekk xutbatu kullu muridin sadiqin fahima mën a nekk royukaay bépp murid bu jëm ci yàlla subhanahu wa loolu lu ko may mooy jaayante ni ñëpp def bi Sëriñ Tuubaa ñëwee ci jógee ci géej gi daf leen woo moom ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Fada ak Cheikh Mouhamadou Roqe Boussa ne leen li fi nekk day jaay ku ko bëgg da ngay def ni ñëpp di def ndax yàlla nag ngërëmal yàlla yàlla musu ko maye yàlla nag njëkk da koy jaay ni ñëpp def na mooy jaayante fas yéene liggéey Cheikh Massamba lu mu waxoon keroog ndokk ba ñu xamee ni ñuy def ba am ndax am rek lañ bëgg ittijee bi ak pas-pas boobu loolu la musa wàcc loolu nag moo tax lépp ci njëkk mooy waajal boppam mooy defaral boppam mooy fexe ba li doomi soxna war a dajee ci moom daje ci moom ci xam-xam ci itte ci yar ci taxawaay ci xam fa mu jëm loolu moo tax ànd gi mu doon ànd ak Sëriñ Tuubaa ñu ko ba sama waxee ba mu gën a gannaaw ba mu ko defee woy juram def ko muy kilifaam def ko muy magam def ko muy sëriñam def koo def nag mu roy waayam bëggut lu sëriñ bi itte woo lu dul sëriñ bi xoolu lu dul sëriñ bi jëmul fu dul fa sëriñ bi jëm amul lenn lu muy ittewoo ci àddina lu lu ngërëma sëriñ bi amul lenn lu bëgg a doon lu sëriñ doon sëriñ bi moo tax sëriñ Masamba radiyallahu anhu sëriñ Tuubaa moo ko seedeel ne laysa li Masamba himmatun siwaa himmati Masamba da amul benn itte bu dul sama itte Masamba xadama ni maa lam yaxdum li ahadin fa uxassisu maa lam uxassis li ahadin liggéeyal na lu ma kenn mus a liggéeyal ma jagleel ko lu ma mus a jagleel kenn loolu nag dundam gi yépp la damay wax ne mboolem mag ñi àndoon sëñ Tuubaa ba am ngërëmal yàlla kenn ku nekk man ngaa wax na ci lii la ko amee lii la doon liggéey sëriñ bi fii la fii bi sax ma sàmb nag lépp lu nit mos a liggéeyal sëriñ Tuubaa ba am ca ngërëmal sëriñ Tuubaa loola liggéeyal na ko sëriñ Tuubaa tàmbalee ko ci sàkket ci defar ay néeg kaas kaare ca nekk ca tool ya ca noddu ga ca mbind ma ca jiite kaamil ya ci bind ay kaamil ci jàngale ba mujjee ci xasida yi waaye ca jumaa ja waaye ci njabootu sëriñ Tuubaa nga xam ne lépp lu laa sëñ Tuubaa moom dafa jàpp ne mën na ci am ngërëmal yàlla am xam ne wu ca góor xam ne wu ca jigéen loola moo tax mu àgg fi mu àgg moo tax sëñ Tuubaa mos ko woone ko ma sàmba yàlla gërëm na la rasulullahi gërëm na la man mii gërëm naa la ma sàmba am nga gërëm lan la ko sëñ ma sàmba ton tontu mooy yaa ma a jóg te toogu ko kon moom mu musu yi toog musu ca nopplu parce que mu amoon ba mu jógoon la ba muy doog ndaw la am ba bu mu jógee mosu ko teg te laxasaayam loolu nag mooy li Sëriñ Tuubaa wax ne ndaka jëkk mag ña nit ñu baax ña lañ mosoon di am nattuwaay yi mu ci ba léegi Sëriñ Tuubaa daa wax ne wa jumlatul aadaabi inda al xawmi fi xamsatin in asrad yaa xawmi ban ak ban xanaa hulu himmati ak lan wa usnu xidmati ak lan shukru ni'mati ak lan xifsu xormati xaamisuha nufusu la azima fa man yuraayiha yenal xanima benn bu nekk ci waxtu yi moo ñu ko may waaye bu ci nekk sama sàmm ni mu ko dundee ba àgg te fa mu ci àgg tey loola moo ko may li mu am tey loolu nag mbokk yi sëñ Masamba lu mu ñu jàngal mooy li yàlla subhaanahu wa taala doon maye démb ak yónent la wax na jeex na ak yónent ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la jeex ak yónent mënut a amati lu ak yónent nit bu ko itteewoo mën na ko am ndax sëñ Tuubaa moo wax ne xaw ma ku ma jàpp woon ne saxaaba yi jàpp woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ku ma jàpp ne saxaaba jàpp jàpp rasulullahi ma def la ni rasulullahi defoon saxaaba yi wax ne saxaaba yi seen baay ci diine moo tax seex si diwaawe ne ko wal mu rabba bi ma rabba rasul bi xarfan bi xarfin yoon murid yi ñu nekkit benn dara rek moo ci fàddu muy nekk xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak nekk doomi sëriñ Tuubaa waaye bu dul dara jëw bu dul maqaamoo jooju ku ko fàggu naka mag ña fàggoo woon sëriñ Tuubaa tey la ko gën a mën a joxe sëriñ Tuubaa tey la ko gën mën a am sëñ Tuubaa tey la ko yii gën a yéene taalibe murid yi ndax sëñ Tuubaa kat dara indiwu ko àddina lu dul defare sëñ Tuubaa dara indiwu ko àddina lu dul eggale jaamu yàlla ci yàlla sëñ Tuubaa dara indiwu ko àddina lu dul taalibe yi mel ni saxaabatul kiraam loolu nag tey la gën a mën a am sëñ Tuubaa fàggul nañu ko ci xasida yi fàggul na ko ci alxuraan bi fàggul nañu ci xidma fàggul nañu taalibe yi mu def taalibe yi dox jëm foofe xam na la sa Ibra amoon la la maam Anta Cheikh man Cheikh maam Cheikh Anta amoon la maam Thierno amoon la Cheikh Daaru Ndiaye aso an amoon jombul kenn itte yi ak pas-pas bi ak jom yi ak xam la ñu wut rek moo ci des waaye lépp mu ngi Sëriñ Tuubaa bëgguñu gudd asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi lay gërëm bu baax ci bàyyi xaar yu am solo yooyu xamante ne teg ko ci waxtaan bi mu am solo mu mel ni ne ku la dégg dina xam ne xam na ne doomu kër gi la barakallah jërëjëf bu mel ni que loolu rek ma ko waxoon rek dama gis ne xasida yi mu wax leen nekk rek ñëpp a koy jàng boobu waaye wala kër seen masam kenn ñu ko. barakallah kon ñu daal di teewlu rek si parce que loolu. alhamdulilah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasulihi al amin sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi teew leen di nuyu ci turu daayiratul muxsinina wal muxsinaat bi xam ne moo amu mboolem sëriñ satoo ci sëriñ Mahmoudan ci góor ak jigéen ci njiital sunu kilifa sëriñ Cheikh Mbakke moom sëriñ Ahmadu Mbakke ak ci tur soxna Njóoba mu soxna Muxsinatu mu sëriñ Mahmudan mbokk yaa ngi ànd ñoom ñëpp di sant yàlla mi nu mayaat tawféexi fekkewaat bis bii gërëm ko ci may gi mu nu ko may te ñaan ko mu nangul nu jataay bi ak yi nu fi wax ak yi nu fi def yépp te may nu nu yàgg koo fekke ci man ak tal ci darajay boroom ëtt bii di Sëriñ Mahmoudal mbokk yi sëti Sëriñ Mahmoudal ñi ngi seedal ñépp ne noo ngi feddali seenu cant gannaaw ba mu yeesalee seen jaayante ak seen kilifteef ci sëriñ Cheikh Mbakke moom sëriñ Mahmoudan mi xam ne moo toogee jataayu sëriñ bi mbokk yaa ngi feddal li seen kilifteef ci moom tey seereel njaboot yi ak bokk yi fi teew yépp na noo ngi koy sant ci jëmmal ji mu jëmmal sëriñ Mahmoudan tooge jataayam wuuf njaboot bi taxawu leen di jéem kem kàttanam ci li ko war ak di jéem a mottali liggéeyu sëriñ Mahmoudan kem kàttanam yal na yàlla gën koo dëgëral te may ko ci ndam lu kawe njortam noonu mu ko sante it noonu la mu sante mboolem njabootu sëriñ Mahmoudan gi yépp gërëm leen sant yàlla ci ñoom waaye sant la leen it seen boroom ndax am na loolu yàlla koy maye te du ko may ñépp ku mu ko may nag war nga koo gërëm mbokk ko waxoon sëriñ Mahmoudan waaw ah, mbokk ne woon Serigne Mahmoudan am na lool yàlla koy maye te du ko may ñëpp te yow may na lool kon war nga koo gërëm mu ne ko lu ma yàlla may lu mayul lu yàlla du may ñëpp te ma ko mbokk mooma ne ko koo gis ci àdduna bu la ko waxee bu la ko waxul baax la bëgg baaxit ku ko yàlla xas may bu la ko waxee bu la ko waxul bu sañoon lu mu am mu baax baax ba noppi loo am mu baax nag yàlla may ko ñépp te yow yàlla may na la kon war nga koo gën kon noo ngi leen di santale yàlla ñoom waaye di leen sant bu baax ci seen taxawaay ci noonu njaboot gi ndax doom lanu ñu doomoonu ba noppi it nawloo nu doom lanu ñu doomoon ba noppi it nawloo ànd ak nun taxawuñu jur nu fan ñu war a jure yor nu yar nu yeenu ba noppi nag téye tey bi moo di kenn ci nun koo xam ne ñoom ñii umpale umpale nañ foo nekk ak ci loo lekk ku ne ñoom ku ne ci bis bu nekk man nan laa woo koo ne nga ne bërëb sàngam ñu ne la ñëwal ku ne nun man nañ laa woo ana nga nga ne maa ngi ñu ne la kay dem bërëb sàngam loolu njaboote la nawloo la kon njaboot yaa sant yàlla ci am kilifa yu mel ne yéen tey ñaan yàlla gën leen sàmm jataay bi it nu sant leen ci ndax seen ndigal la ko amal sëriñ Xaadim mi koy wax léegi 2003 lan sosoon daayira sët yi noo ngi ci 2023 kon ñaar fukki atam ci ren am lu nu sëriñ Ahmadu Mbàkke waxoon ba mu nuy jox ndigal keroog ban ko sosee octobre 2003 réunion bi nu njëkk a def kër sëriñ Mahmoudan ba nu defee réunion ma bay bëgg tàggoo sëriñ Ahmadu Mbàkke fekku ba mu noppee bokk sukk fi kanamam mu dénkunu ñaanam bokk na ci lan lu waxoon nag ci dénk mooy na yëg ne tàmbali lu baax yomb na waaye sax ca ak saxal ko moo jafe kon nag lii ngeen tàmbali na ngeen ci sax te yi loolu nag buñ ci mënee nekk boobaak tey daa fekk njaboot gi fi nekkal sëriñ Mahmoudan farlu ci bis bii waxtu wu ñëwee xam nañu ne seen yëfa moo tax dañ koy ànd ak ñun ci seeni xel gannaaw ban nu joxee ndigal wëlbatiku ànd koog ñun ci seeni am am wëlbatiku ànd koog ñun ci teralamu seen jëmm sëriñ Cheikh ak sëriñ Falilu nun noo sàkku nu nu nu nu nu bàyyi nu fi ndax nit bu dee sa kilifa nag dana àgg foofu boo te amoon la la gënal sakkanal Cheikh Abdul Ahad léegi la jóg Cheikh Mahamadul Lamin léegi la jóg sëriñ Cheikh ak sëriñ Falilu ñi ngi nii déglu Serigne Abdul Xaadir ak Serigne Souhaïbou ñu ngi nii toog dend ak seeni rak Serigne Mam Samba Serigne Mam Moor ak njabootu Serigne Mahmoudan gépp sunu waajur soxna Dabangee soxna Waalo soxna Ami soxna May soxna Ami Bàcc ñu nii toog dend ak sunu waajur soxna Ami kon njabootu Serigne Mahmoudan yépp ngi ci tànk bi ànd ak nun jataay bi bokk yaa ngi leen di sant te di leen ñaanal ngërëmal seen bay dal leen noo sant bu baax mboolem mbokk yi nga xam ne ñëw nañu wuy si bis bii ngir yàlla ak sëriñ bi ña jiitu te ñooña di njabootuk sëriñ Masamba sëriñ Mamoor mi fi nekkal sëriñ Masamba mu siyaar ko te ñaanal ko yàlla gën koo yàggal ci jataay bi te wane ci moom kintaanu dundu njaboot gi soxla nañ ko te noonu koy ñaan yow la di sant bu baax bokk yi teew te jóge ci atub sëriñ Masamba wuutu fii njaboot ya njabootu sëriñ Modou Fati Fari teew fi ci teewi mu am solo ci njiital sëriñ Modou Mbacke mi nga xam ne moo toogee jataayu sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Fati Faye ñëw na ànd ak i rakkam moo xam ne diggante kër sëriñ Cheikh ak kacet kër Cheikh Mamadou Fadel ma toogee jataayu sëriñ Modou Fati Faye kenn desu fa ak ñañu ko bokkal sëriñ Modou ànd na ak sëriñ Xaadim moom sëriñ Cheikh bu sëriñ Modou Fatick Fay ànd ak sëriñ Jiili moom sëriñ Cheikh mu sëriñ Modou Fatick Fay ànd ak Cheikh Murtada moom sëriñ Cheikh mu sëriñ Modou Fatick Fay ànd ak sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Cheikh mu sëriñ Modou Fatick Fay ànd ak sëriñ Xaadim Mbakke moom sëriñ Cheikh mu sëriñ Modou Faty Faye waaye itam ànd ak i rakkam di njabootuk sëriñ Fadilou sëriñ Fadilou Mbacké moom sëriñ Modou Faty Faye sëriñ Fadilou moom sëriñ Fadilou mu sëriñ Modou Faty Faye sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Fadilou mu sëriñ Modou Faty Faye sëriñ Moustapha Mbakke moom Cheikh Mahamadul Fadil mu sëriñ Moodu Fati Xari ak sëriñ Baara mu sëriñ Fadilu ak mbooloo mu bari loolu jëmm la jëmmal la ak safoo njaboot yooyu seen bokki bopp yi nekk fii ñi ngi leen di wax ne bég nañu ci seen teewaay ngir won nanu ne ñoom ak nun noo bokk bis bi noo ànd jatay noo ngi gërëm bu baaxit bokk yi bàyyi ko ci kër sëriñ Moustapha sëriñ Masamba teew fi teewal sunu kilifa sëriñ Ahmadu yal na ko yàlla gën a dëgëral te ko wér sëriñ Aydara Mbakke mi di ab taawam ñëw na ànd ak sëriñ Abdul Baaxi moom sëriñ Jiili mu sëriñ Musaa mu sëriñ Masamba ànd ak sëriñ Alhaaji Mustafa moom sëriñ Ahmadu ñu ñëw ak ñañu àndal ñépp teewal njaboot yi ak bokk ya bokk yaa ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm bokk yi wax na it noo ngi sant bu baax kenn koo xam ni njabootu sëriñ mahmudan ci la bokk ndax day mbokk ba noppi bokkoo leen waaye itam jataay bii ak mu nekk mu ànd ko ak moom di mbokk di xarit di soppe di wéttal muy sëriñ seexu naa saar di kenn ci njabootug Seex masaar Sarr Diasaka Serigne Cheikhouna bokk yi ñu ngi yeesal seenu cant ci yow xam nanu ni nga safoo njabootug Serigne Mahmoudan gannaaw ba nga bokkeek ñoom li ngeen bokk waaye itam wéttali gi nga nuy wéttali ci bis bi ak jataay bi loolu yitam bokk yi ràññee nañu ko noo ngi yeesal cant yi ak ngërëm yi di sant bu baax njabootu sëriñ Saa Buso di kenn ci sëriñ Masamba teew nañu fi sëriñ Alxaaji Buso moom sëriñ Abdu Buso mi nga xam ne ku nekk xam na ko moo ko jiite ak ñaw àndal bokk yi itam ñi ngi sant bu baax ay bokk yoo xam ni bis bii dañu cee bokk waaye it ñu def ko muy seen yëf ànd koog njaboot gi jàppale leen ci li koy sottal ci seen xel ak ci seen am-am ña jiitu ca ñooña mooy mboolem taalibay sëriñ mahmudan wëlbatiku tënku ci daira yi xam ne ñoo aju ci ëtti sëriñ mahmudan yi bokki daira yi bokki taaliba yi daaira sëti sëriñ mahmudan ñi ngi leen di santaat di leen gërëmaat di leen ñaanalaatit yàlla gën a yàggal seen taxawaay te dolli leen tawféex ndax bis bi def ngeen ko muy seen bis saabu bu ñëwee lu bokk yi soxla ci yéen lu ñu leen ca laaj ngir bis bi mën a sotti ngeen jàppale leen ci mbokk yaa ngi leen di sant tey ñaan Serigne Mahmoudan mi xam na nun ñépp moonu tax di yëngu jëf yi ñu dajee ci ak ngërëmam bokk yaa ngi sant bu baax sunu kilifa Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Mahmoudan ci taxawaayam ak jëfam ju ràññiku ci bis bii noo ngi koy yeesalal cant gërëm ko bu baax magam sëriñ maam sàmba nga xam ne ñoom ak sëriñ maam dafa am lu ñu doon ci nun mooy dañoo bokk ak sëriñ seex ñoom liñ doon ci nun mooy di sunuy baay di sunuy kilifa waaye wëlbatiku nag def nu àndandoo ci lii réunion yi ak yi ñuy def li yépp dañ koy fekke lu leen te seen jot may àndunoo nun ci nu ne nooy seeni kilifa waaye man na mu ne bu nu yàlla dimbaliwul ci ñoom sax nu def leeni moroom waaye ndokk nag ba nga xamee ne yàlla suturaal nañu ba duñ jaawale yooyu waaye ñi ngi leen di sant bu baax sëriñ Mam sàmba sëriñ Mam Moor sëriñ Moustapha ci seen taxawaay ak ànd bi ngeen ànd ak nun liggéey bi yal na yàlla gën leen a dëgëral bu baax bokk yaa ngi sant bu baax kenn ci mbooloo mi muy alaaji Mbay Saar bu Sénégal Tour moom itam ku am taxawaay la ci bis bii loolu mu sëriñ Mbàkke Mahmoudan waxoon man nanu ne noog moom a ko bokk ndax ba nu tàmbalee bis bii ba ci bisub tey bii at mu nekk mu def ci jëfam joo xam ne ju mat sëkk jëf lay doon ngir ànd ak nun bis bi ak jàppale nu ci li ñuy def bokk yaa ngi koy yeesalu cant te di ko ñaanal bu baax di gërëmit alxaaji ma sekk baar di meeru Tuuba Mbeela bokk yaa ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam di gërëmit kenn ci mbooloo mi muy sunu najaay alxaaji du Sekk mi xam ne at mu nekk mooy ànd ak nun ci jataay bii bu nuy wax nu man di dégg gannaaw yàlla ab taxawaayama la mu am ci jumtukaay yépp indi na ko ngir liggéeyale ko sëriñ Mahmoudan ci guddi gii bokk yaa ngi koy sant moom it te di ko ñaanal yàlla fay ko taxawaayam ak jëfam mbokk yi ñu ngi sant bu baax njaboot goo xam ne ñooy ëttib sëriñ Mahmoudan te moo di sunu mbokk yi nga xam ne ñoo bàyyi koo ngaabu ci njiital sëriñ Mouhamadou Mayloo mi nga xam ne mooy xalifa ba waaye ànd ak njabootuk sunu wayjur sunu maam sëriñ Cheikh Lo Amsatu nga xam ne mooy jëw jëwriñu sëriñ Mahmoudan ñoom ñépp njaboot ya ak sët ya teew si nañu ci bis bi ngir yàlla ak sëriñ Mahmoudan ñooñu nag ñooy kër gi ñoom bokk yaa ngi yeesaluk cant ci ñoom tey fedd li mboolem yi nu set di sant itam mboolem presse bi fi teew nga xam ne ñooy jël jataay bii man koo jottali ñi fi teewutoon ñooy jël jataay bii it ëllëg nun ñi ko teewe ku ko ci bëgg a toppaatit man koo topp ñu teew siti ci ak jàppandal jël si istiqaama rafa ak rafetal tur moom xam naa ne tur wu am solo la rafetal ak Touba Mbella TV kon ñoom ñent ñépp Touba Mbella istiqaama rafaha ak rafetal bokk yaa ngi leen di sant te di leen gërëm seen teewaay ci bis bi njëkkul tey yàlla na ko yàgg ànd te yàlla gërëm lépp ci biir loolu sëti sëriñ Mahmoudan ñi ngi sant ci gàttal mboolem mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi fekke ci bis bii ñi nu tudd ak ñi tuddul ñi ñuy tudd dañ koo tudd ngir jëmmal waaye ñi teew jataay bii bu ñu leen doon lim ci la nuy fanaan te duñ matal maa ngi fii seen ay bokk yoo xam ne ba ñu tàmbalee bis bii ba ci bis tey jii fàttalikuwuma guddi guñ ko def te ànduñu ko te mësunoo wax kàddu gi sax ba tudd leen waaye xam nañ ko ñi ñu wuy si xam nañu leen yàlla na yàlla fay leen ci barkeb Sëriñ Mahmoudan noo sant bu baaxit ay bokk yoo xam ne dañoo am taxawaay jëf te jëf ja ñu jëfal ko sëriñ Mahmoudan muy bokk yi nga xam ne ñoo doon yeesalaat mbaar mii nu nekk ci njiital euh, sëriñ Malick njaay nga xam ne mbaar mi penturaat nañ ko karo ko ba mu daj te ñoo ko def ci seen yitte ak seen jom ak seen pas-pas ak seen dooley bopp ci ndigalul sëriñ bi jëf jooju nag sëriñ Mahmoudan lañ ko jëfal sëriñ Mahmoudan nag fi mu ne jëf juñ ko jëfal sëriñ Cheikh Mahmoudan moo ko sañ a seede te seeña seedal na ko ci suba nun ñépp nu fekke ko mu sant leen gërëm leen waaye sëti sëriñ mahmoudan kon ñoo ngi dugal seenu cant ca biir santuk sëriñ cheikh mahmoudan santaat la yow Malick yaa bopp yi nga àndaloon ngir ñoom jàpp nañu ne lu waay jëf ñoom nga ko jëfal ndax ñoo war a laxasaayu liggéeyal seeni kilifa defal leen seenu bëgg kon lu waay def ca loola ñoom nga wàññil seenu liggéey yal na yàlla nangu liggéey bi tafay ci daaneel nag ma ñëw ci lu mel ne dañu ko mujjata mujjewuma ko ndax moom laa jiital ci sama xel moo di sant bu nuy sant alxaaji sëriñ busra sàmm sëñ busra maa ngi lay jottali cantu bokk yi bokk yi ñoo sàkk woon jataay bii nga ñëw ci tey xëy na tey la ko yàlla dogal sax nag ndax am na yoon ñu sàkk woon ko yàlla dogalu ko ngir xat-xati jamono tey nag bokk yi sàkkuwaat ko yàlla dogal na mu jàppandi bi nga dikkee it alhamdulillah ñëw nga ci sa bërëb ñëw nga it ci bërëb boo miin waaye itam bi nga dikkee it li taxoon nu andi la mu di waxtaan wi nu doon ci yow andi nga ci loo xam ne doy na ci ab yóbbal ci jataay bii sëñ Busra na nga yëg ne bokk yi bég nañu sant nañu itam di la gërëm te di la ñaanal yaa ngi bay sa waar ci toolu sëriñ bi ci anam yii nga xam ne moom nga tànn yàlla dogal ko ci yow muy waxtaane sëriñ bu mag bi ak dundam ak i gaayam yàlla itam sédd la ci aw tur yàlla na yàgg liggéey boobu nag nga xam ne boo yàgga taxawe la taxawe nga ko tey foo xam ne taxawe nga ko fi ba tey muy Tuubaa la dëkku Sëriñ Mahmoudan toog ci péncam waxtaane ko bokk yaa ngi lay sant ñi ngi lay gërëm di ñaan waxtaan wi yàlla na ko yàlla gërëm te njariñal waxtaan wi nu bokk ko jariñoo ñépp ci waxtaan boobu nag lay daanee la kàddu gi ab yóbbal la bu ñuy yóbbuloo ci biir waxtaan wi sëñ Busra dama dégg ci biir yi waxam mu ne mag ña bokk na ci li leen tax a réussir teel a jóg sëriñ Mahmoudan mii tax mu teew fii doy na royukaay ci loolu moom lu tax mag ñi jànkonteel seen jamoy jafe-jafey jamono ba réussir te jàmbatuñu nun nag mu nekk ci digg xéewal di jàmbat te taxawalagun dara mag ñi ñoom jànkoonteel nañu ay coono ak i jafe-jafe ba réussir te jàmbatuñu nun nag mu nekk ci digg xéewal di jàmbat te taxawaloon dara jom fekkewu ko yitte fekkewu ko dafa am mbokk moo ma soon a laaj daaw ci màggalu Touba Mbella ne ma sëriñ Mahmoudan bi muy sanc Touba Mbella ñaata at la am ma ne ko jàppal na maa ko mag booba kii nga ma koy laaj bi sëñ Mahmoudan bi sanc Touba Mbella maa ko mag ndax booba ci fanweeri atam képp la toll waaye lu tax mu réussir jom ak ngor ak yitte am lu ko tax a jóg am dogug yegg ca lu mu wax sëriñ jiili meenu ko nettali woon ne sëriñ mahmudana ko ko waxoon sëriñ mahmudana daf ne tuubaa mbeela bi ma ko sancee daj naa fi coono yoo xam ne yenn yam man naa leen koo wax waaye am na ci yoo xam ne duma leen ko wax mukk coonay biir ak coonay biti mu ne waaye moom sëriñ Mahmoudan mu ne waaye damaa def la mag ña daa wax mooy samp tëbay samp tëbay sëriñ Mahmoudan bu amutoon jom du fi bu fi nee jàng ndam ndax bi mu fi ñëw yoon amul lekk bariwul ndox yombul fi gënoon a jege ci fu ñuy wuta ji ndox lu gàtt gàtt da dox ñaari kilomètre ak ñett jëm juróom doo ko am ndox moo naan mu nekk fi doone najaay la fi fekk si doone baayam a ko sancoon mu di ko dabu si doone ay maama man na ca ga muy dëkk jeeg ñoom jóg la def romb sanci baayam romb sanci najaayam romb sanci maamam xuus ci sanciy bokkam ñëw ba fu mu xamul kenn ñafi ak jomam ak ngooram ba Tuubaa Mbeela di njëndi tey jii biig la ma ko sëñ Abdou Lahad gi wax mu ne ma Touba la day dëkk yi ko wër amul dëkk buñ fi sancaat gannaawam dëkk yi fi nekk yépp fi la leen Touba Mbella fekk Touba Mbella mi ngi ci juróom ñetti fukki atam ci ren 43 la ko sëriñ Mahamadan sanc 43 la ko sëriñ Mahamadan sanc rajab 42 la sëriñ Masamba wàcc bi liggéey euh, gàmmu 43 la ko sanc rajabu 42 la ma sàmm wàcci liggéey gàmmu 43 la Serigne Mahmadan sanc Touba Mbéne sëñ Abdoulaye ne ma waaye li lay xamal liggéey bu yàlla gërëm mu ne ma Touba Mbéne day booba moo daa wuti waaye tey jii mooy capital bi moom kuy jënd fi ngay ñëw kuy jaay fi ngay ñëw lu waay di wut ci fi ngay ñëw ba doo ko am liggéey bu yàlla gërëm moo ko ko may waaye nag jooma ko ko may de ak ngor ak yitte sëriñ Mahmoudan dafa am lum daa wax loo xam ne ku ne ci nun bu ko yoo raw say moroom bokk na ci engagement bu mu jëloon bu ko murit yépp jëloon sëñ tubaa am lam bëgg mooy kenn du yab sëñ tubaa di ko jaare ci man mahmudan kenn du yab sëñ tuubaa waaw ah, du ma kenn du ko yab di waaye man daal kenn du ko yab di ko jaare ci man ndax kenn du gis ci man melo wooy xebat kenn du dégg ci man wax joonaan nuñ koy mën a waxe kenn du dégg ci man jëf joonaan nuñ ko mën a jëf lu ma jëf lu ne lu sëriñ tubaa di gërëm lay doon ne ko ku ne def na ko ku ne def wax ko yomb na waaye jëf ko nag jëf na ko la ca dolliku nekk na yitteem mooy sëriñ Mahmadan baax da caa tegul kenn ci kanamam moom dafa xam ne baax yàllaa ko digle sëñ Mahmadan baaxul ngir sëñ Masamba ay sama bàyyi baaxul ngir sëñ Tuubaa mii ma yaakaar dafa baax ngir xam ne baax yàllaa ko digle sëriñ Masamba baayam moo ne Mahmoudan ni mu tege tànkam ci sariya ak sunna man mii di baayam sax bu ma ko ci bëggoon a jële mu bàyyi ma loolu ak dogu la ak jom yëg ne baax ka ko mayoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam may ko sëñ Tuubaa moo koy may ku ko wut sëñ Busra wax nga léegi ne sëñ Touba def na woon Cheikh Moustapha ku dul man man nga koo gën Cheikh Moustapha moo waxoon sama bàyyi ne ko Malick mu ne ko Makk mu ne ko gën ñépp yàllaa koy jagleel ku ko soob te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jagleel mu ne ko waaye ku jóg gën la nag yàlla tegu ko kenn ku jóg gën la yàlla tegu ko kenn man mii sëriñ Muntaxa daf may ñaanal bis téye sama loxo di ñaan ba yàgg mu tudd ñaar ci mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa ne ma maa ngi lay ñaanal fu diw ak diw yeggoon yàlla na ko weesu mu mel ne wax ja dafa ci man ma ko ah! mu joxañ man ne ma bu ko jommale sa bopp de bu ko sa bopp de man a tekk mu ne ma Cheikh Basir ma ne ko mbàkk mu ne ma yëgal ne mag ñi àndoon ak sëriñ bi fañ yamoon bu dee mënuñu koo weesu liggéey sëñ Tuubaa bi jëmul kanam moo ma wax mag ñi àndoon ak sëriñ bi fañ yamoon bu dee mën nu ko weesu liggéeyu sëñ Tuubaa bi jëmul kan man a tekk mu ne ma yaar képp la laaj yaar yitte ju mat sëkk ak pas-pas bu wér mat sëkk la amoon ak pas bu wér lu matagul ñaari weer ci weer ak fan lay toll maa ngi koy nettali sëñ Xaadim mii démb yaakaar naa dama nekk ñoom rek am mbokk mu ma woo fii ci Touba Mbella loo xam ne nag booy boo gaa yi laxasaayu ci mbokk woo ma fii ci Touba Mbella ci magi dëkk bi ñu waxtaan lu yàgg mu ne ma sëñ Bassirou ma ne ko Mbàkke mu ne ma man damaa am lool daf maa jaaxal lool may toog di ko xalaat rek te mënuma cee wax kenn waaye yow ma jàpp ne mën naa cee wax ak yow de ma ne ko ah mu ne ma dëkk bii ma nekk di Touba Mbélla sa maama ko sanc Serigne Mahmoudane ma ne ko waaw mu ne ma jom ak ngor la ko sance daj coono yu bari ak la mu fa daj lépp ba dëkk bi di dëkk tey ma ne ko waaw ah, mu ne ma ma seetlu nag ña àndoon ak moom sañc ko seeni doom sanc nañu ba seeni sët a ngi sanc ña ko fi fekk si woon seeni doom a ngi sanc ba seeni sët a ngi sanc moom mi sancoon nag gisaguma sëtam bu fi sanc ma ne ko ah man de ma daal teggituma man ma ne ko ah man de fii may wax ak yow maa ngi sama dëkku bàyyi di sanc daan na ko waaye daan na ko waaye loolu nag aw lu may lu may waxaale gaa yi la ma ne ko nag waaye bokk yooyu yi nga jàpp ne sëñ Cuunu dey mën naa leen a tontul ndax ku ma ci xamul amul booy boo sa xel dal ci ñoom de dafa am rek ci lu ñu nekk te duñ ko génn mooy dañoo nekk ci ron kilifteef te wax seeni kilifa fu ñuy jëm looloo te sañ ci yi am de njaboot yi dañoo nekk ci ron kilifa yi te duñu ne kilifa yi nu ñuy def te kilifa yi leen def leen lii waaye wallahi kenn ca ñoom kuñ ne woon sa kër yi balaa déwén mu sanc njaboot yii kuñ ne ci woon sa këran ji man mii ci gën a ñàkk solo de buñ mën a woon tey ji sa këran ji bu may màggal si diggante lay màggale ma ne ko kon na sa xel dal ci ñoom dañoo ne ci ron kilifteew te duñu ne fu dem te néew buñ leen jëm fii waaye nag kon ma ñaanal njaboot yi sëriñ si ne ah dëkk baa ngi màgg rek de kër yaa ngi dem rek de te njaboot yi bëgg nañuy kër nan ñu may ci kër yi jege ñu defar ko ngir sëriñ Mahmoudan wasalaamualeykum wa rahmatullahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin sayidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi sawa ridwani wa tamkin wa radiyallahu an sayxina ahmad al xadim ridan la sukta baadahu wa an jamihi awliya ilahi salihin wa an il muminina wal muminati ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen delloo itam ab nuyoo ci turu sunu kilifa ñun ñëpp muy Serigne Cheikh ak njabootu Serigne Mahmoudan gi nekk ci gannaawam yéen waa daairatul muhsiniina wal muhsinaat ak seeni gan ak seeni bokk sëriñ bi mi ngi leen di nuyu yéen ñépp tey sant yàlla bu baax di leen sant yéen ñépp ci taxawaay bu rafet sëkk defe naa bu dul woon ne kàddu sëriñ bi la ñuy jàllale dañuy tànnal ñun ñëpp rek ñu ñaan ne amiin ndax liñ ci war a wax te may lu am njariñ ñu man koo jariñoo ren ba déwén ñi fi jiitu jël kàddu wax nañ ci lu bari tàmbalee ko ci Serigne Bouchra mi nga xam ne moom ngeen sàkk woon mu defal leen waxtaan wi ak commentaire yi nga xam ne moo ci tegu te oustaz Adama Ndaw ñëw ci ak oustaz Cheikh Mbacke Ndaw Basiru Lo nag moom dafa def nam daan def euh, soññee na soññee boo xam ne mat na sëkk ab soññee euh, yàlla na yàlla bàyyi ko xelam wax na fi lu am solo loo xam ne lépp dëgg la te lépp ma des na koo jariñoo kon nag li am solo ci wax mooy yow mi ñuy waxal kiy wax ak yow lu mu la wax nga xool la cay sa njariñ lépp nga fas yéene koo jël te jariñoo ko koy itam loolu ñu bàyyi ci xel bu baax Euh, di leen sant nag bu baax ci turu sëriñ bi ni ñoo ko waxee léegi ndax wax dëgg yàlla ay njaboot ngeen yoo xam ne ku leen njaboote ku ne a xelam dana dal ndax xam nañu seen yitte xam nañu seenu jub xam nañu seenu bëgg lu baax te itam gis nañu ne seeni bët xoolul leen ko fenn fu dul ci seeni kilifa njaboot bu mel noonu nag ku ko am wax dëgg yàlla sa xel war naa dal moo tax sëriñ bi mi leen di feeñal xelam dal na ci yéen xolam rek sedd na ci yéen yàlla na yàlla àggale leen fa ngeen jëm te leen dara gàllankoor wax ji nag day mel ne foofu rek laa koy tënk gannaaw cant gi rek nag ñu gën a góorgóorlu rek te xam ne nit ki buñ ne laay yaa ngi aw ci aw yoon te wàccoo yoon wi te yëg yaa ngi dox ko la wax loolu ku ne ma nga lay soññi kon sëriñ bi kàddu yooyu yëpp daf cee jubbu rek soññi xam ne kat ñi ngi ci li war a nekk waaye nag loolu ñu war a nekk te nekk ci buñ ci jógee mukk te nañu gën a yokk sunu yitte ndax bari na lu waay am yitte ko ko may ak dogu ak bëgg waaye bari lu waay ñàkkit ñàkk yitte ak ñàkk bëgg ak ñàkk dogu moo ko ko xañ kon loolu mbokk yi ñëw bàyyi ci xel bu baax a baax euh, dëkk bii nag li ci Cheikh Mouhamadul Bachir wax loolu moom kenn mënu fee waxaat ci bi euh, lu mel na loolu wala lu ko ëpp ndax it lépp dëgg la te lu wér la atam doole loo xam ne ñun ñëpp lu ñu xam la kon nag ku amee ku mel noonu mu jaar fi mu jaar ba am li mu am lay sa jom eh, di sa ngor mooy bu la ëppee ay jéego yow dala dogal ab tànkam rek te di ko xeeñtu te bañ a taxaw insha allahu da nga àgg wala yàlla dimbali la ñu rafetlu la kon mbokk yi eh, loolu moom itam ñu bàyyi ci xel bu baax defe naa am na benn point bu boo xam ne Serigne Bousra tudd na ko am na ñeneen ñu ci ñëw itam euh, feeñ ci biir waxi Cheikh Mouhamadul Bachir loo ndax wax na ne sunu kilifa yi dañ dañ ñoo ñu jilif waaye dañ ñu yilif ba noppi nag nawloo ñu oh baat bu am solo ñu noonu na yilif nit ba noppi nawloo ko dafa am lu koy waral nag la koy waral mooy ki nga nawloo da lay wóor ne boo ko xasee rek xas sa bopp mënoo koo xeeb ci genn wàll loolu nag moom la mag ñi daan def jiwu daal ku bëgg gàncax bu baax danga koy tànn mag ngi noonu lañ naan def kët kon loolu moom itam luñ mën a jariñoo ci waxtaan wi la ñu bàyyi ci xel jariñoo ko kon daal guddi na te liñ fa wax lépp luñ mën a ñoo la te ay wax ndeke moom bu jeex te waxtu day jeex bokk yi kon kàddu gi nañ ko tënk foofu ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala fekke leen ñu suba eh, ñu taxaw taxaw bis bi ni ko boromam bëggee jàng alquran jàng xasaayit wax lu baax def ay bernde eh, ñaanante ba déwén ak jàmm insha ñuy ñaan yàlla yàlla ñu ko yàgg a te ànd koog suñu kilifa gu baax gii nga xam ne mooy Serigne Cheikh ma sëkk li mu doon baax lool wayaf lool sawar lool mën a yiir njaboot lool te àgg foo xam ne ah bi ngeen ko ñaanee ne ko jéggal nañ la loolu man sama mbég naa ci lool ndax defe naa Cheikh Bachir Lo moo ko wax am na mag moo xam ne ku ko am danga koy sakkanal te moom ci mag ñooñu la bokk kon nag sakkanal bi ñun ñépp lay jariñ ndax lu mu fi gën a yàgg rek du suñ njariñ kon nag nañ ko sakkanal bu baax yàlla ko fi yàlla yàggal te yàlla doole ko ak wér ba liggéey yi nga xam ne mi ngi ci rek mu àggale ko di daal di àggale di àggale ñu ànd ko moom rek ba mu sob sunu borom yàlla na yàgg lool ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin salaatan tunajjina biha min jamihi alahwali wal athati wa taqdi lana biha jami alxaajati wa tutahhiruna biha min jamihi sayiati wa tarfauna biha indaka ala darajati wa tuballighuna biha aqdal ghaayati min jamiihi alxayraati fi alxayaati wa ba'da almamaati allahumma ya man kaana qabla kulli shay'in almukawwinu li kulli shay'in alkaa'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhraja waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana husnal khitaami rabbana wa salliyan ala annabi wa sallim waqdi bihi haajata kulli muslimi amin ya rabbal alamin boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bës bind abone bu leen fàtte bës fi ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo